Euh, ñu dem bala dem ci def naa Modou bu fekkee réer am na nga préparé ma ko Moustapha Dramé fa la ñuy jeexalee 17000 personnes wala 18000 nga xam ne gis naa ko léegi ku ci abonné wul nga profité abonné émission bi jomet la tudd mi nga am altine ba aljuma gannaaw ba 11h jotee la door incha allah li Assane di wax lépp ñëpp ngi fi lu ne ku ne ngi fi kon bokk lépp loo xalaat ci xeetu émission rek dana fi am mm-hmm. Moustapha Dramé euh, procureur euh, dafa sàkk woon keroog mm-hmm. ñu tëj ko ñaari atti kaso ñu ne après atte bi àllarba lañ koy xam muy démb. Mm-hmm. Mm-hmm. gannaaw ba démb joxe nañ euh, ndogal li muy daal ñaari at yooyu ñu sàkk woon juge bi dafa mujjee jël ñetti weer yi ni ko demal nga tëdd ko. Mm-hmm. li ci des nekk suuf si. waaw sant yàlla sant yàlla bu baax a baax wax dëgg yàlla euh, ñetti weer ak fay. Hmm? ak fay ak fay waaw baax na xam nga xaj na loolu ñu ñetti weer yi corrigé la. waaye bu fekkoon ni teeloon na ko lijjanti fi ñu ko arrêté woon xaj na. loolu du yegg si fii waaw ndax foofu dinañ la wax ni la jéem la fay. mais keroog bi ñu taxawee xam nga yow woo nga peña bi mu ñëw taxaw. Mhm. rakkam ñëw taxaw nga laaj. mu ni man ñu tëj ko amul ma benn intérêt sama xaalis rek laa soxla. rakk ji mhm. ne la yor naa temps. waaw te jotoon na Moustapha jotoon naa joxal temps. ñu ni kon xaj na bu taxawee bu nee pare na pour fay nañ ko mën a bàyyi mu dem ndax bu njëkk dañ lay laaj noo ko mën a fayee nga wax ñu ne aca demal weer wu dee na ko fay. Mhm. mais xaj na day ànd ak corriger corrigé ndax maanaam bu mu amati daal waaw bu mu amati ndax ndax euh, xaj na bëgguma see ñëwaat sax si benn problème am na imaam imaam Ababacar Sylla am na ku muy wax mu ne am na koo xamante ni mën naa fay ba dem mais bis bu ñu àttee ba yoon ni ko yaa defoon jël nañ sa xaalis mën mhm. nañ ne ko kaay dañ lay nga ñam ah, li ngay bañ mën naa am donte ne fay na waaw donte fay nga nee na mën nañ laa corrigé mhm. ñamal la si kaso bi pour pour ëllëg du too ko defati xaw laa jaaxle itamit euh, lu mel ni bi mu fi dalee am mbër ñëpp dañoo ñëw taxaw mais mbirum Moustapha mi am na démb ku koy wax ne dafa seetlu daal sëriñ si taxawuñ ko rek naa demoon nañ ko rek xooli mais gisoo fa kenn. Hmm. waaw maanaam mbiram doo dégg ko ci wax ci sëriñ si. Hmm. Euh, soutenir amu ci. Hmm. ci kaw boog li ñu gis mën naa am ci suuf. jaaxalu la. waaw bu si corrigé bu si jàppale amoon du egsi fii ndax loo xamante ni 4 million la. yaakaar naa am na ñoo xam ne si internet bi dañu naan maye nañ nangam millions nangam xam naa ay dóor la. ci internet waaw gis koy yëkkati ay millions di maye. te sa mbokkum ñu jàpp ko ci 4 millions. tëj ko ci mënoo koo fay munoo koo jàppale moom it tey kii nga xam ne corrigé nañ ko yaakaar naa jàpp nañ ko ci 4 millions xaj na li muy xaama yi muy war essence bi koy déplacé rek day jaral 500000. kooku kon it mënoo ni xaj na yoru ko. xaj na ñoom it dañoo yaakaar ni kii dafa bañ a fay waaye yor na ko. man da affaire yi mënoo xam te it ñiit ce que yëg nañ ko est ce wax na leen lim leen war a wax est ce ñu ko woowee wax na leen li xew ndax mbir it bu fekkee indi nañ la pelante mhm. wal say nit neen ah saa dañ maa indil pelante pelante bi nag xam naa problème mu nangam la mhm. yëgal leen ko ñoom ñëpp ñu yëg nga xam ne ñoom bukkee dañ ah waxoon na ma ko kat naa jóg mhm. ñu teel ko lijjanti lebal la nga fay mais it ñoom it bu ñu génnee si kii nañu nañu nañu simple rek nañ simple mooy waaw Assane Mesere laa nii laa mel yoruma xaalis boo xamante ni mën naa see def leen def li ma tollool mais boo ni doxee nit ñi am na charge yu ñu lay teg sax yoo xamante ni mënoo ko te da nga ko def. d'accord maam nga nga nga kii rek ndax it wax dëgg yàlla 4 millions mu ko dégg ñaa ay 4 millions la yu ñu naan moyen wax wax dëgg yàlla ak Moustapha man mën nañoo tase ma xool ko sax mën naa koo ñaan 2 millions. yaakaar yaakaar ñu ma am ci wax dëgg yàlla yoru ko mhm. mënu ko ndax su ko mënoon dana ko fay bu ko mënoon bu amoon benn oto bu mu tay la sax mu tay la ko fay ko moo gën muy tëdd kaso njóogu mhm. mbir ma ñetti weeri kaso lay mujjee tëdd euh, loolu la procureur sàkk woon waaye juge bi daal daaj na ko ñettiweer yi mu tëdd ko la ca des sursis lay doon moom lu ko yóbbu kaso ci euh, liggéeyam la wala waaw ah, liggéeyam ci ñaan da doon ñaanalaat ah, escroquerie daal en tout cas daal ci bund ba boo demee buñ bindee turam ci projet bi escroquerie lañ def hmm. waaw ñaan ñaan gi la ak xaalis bi dana ko mën naa laa mën ngaa jox kii xaalis man dama lay ñaanal nga dem léegi ñaar yooyu lañ koy maam. dama lay ñaanal nga ñaanal ko. ak mm. dóor ko si xaalis. waaw mais ñaan moom day nangoo wala mu bañ a nangu moom. ñaan gi dafa garanti ne day nangu wala. parce que bu dee man damaa ñëw ne la ñaanal ma ma ne man de lii laay ñaanee. Mm. waaw non mais nag gars yi duñu wax gars yi danaa bu ñaanal tukki da naan léegi un million. la may jox alaaj fi mu nekk baax na de bàyyi ko tukki <laughs> ñaanal mu tukki nga may jox loolu lañ lay wax. maanaam alaaj fi mi ngi nekk ci. damaa ñëw ne Assane ñaanal ma bu ma am butéel bi. ñaanal yow da ngay ñaani ñaan ñaanam ma boo ne moon ñaanam ma bitil bi man la un million nga may jox un million nga may jox bàyyil saabu dem la boobaa ñaan gi da nga maa war a boo ma joxee un million damaa war a jot si bitil bi waaw d'accord c'est léegi xam nga ñaan bu dee man dama ñëw di ñaan mm-hmm. yow da nga ñëw ne ma ne ma ñaanal ma mm-hmm. damaa bëgg a tukki ñaanal ma ma damaa bëgg a ne la ñaan gi dem maa ngi koy defee nàngam mm-hmm. nga ne ma waaw man xam nga ne damay ñaan ma ñaanal la jox la ne la defal lii ak lii ak lii def nga demu hmm. nga ñëw ne ma saay dew ma man naa def damaa ñaanoon hmm. xam naa dañ maa mawit wala hmm. comprendre way laa dafa am leneen loo xamante ni bi wax na ko ci biir ñaan gi maanaam dafa garanti ne day da ngay am wala garanti wu ko nan la yëf yi demee quoi mais koo xam ne day ñaan moom ñaan ñaan la dudd dañ koy may wala ñu bañ koo may yow yow soo demoon euh, soo demoon ambassade di ñaani visa lu ñuy wax da ngay ñaani visa waaw da ngay dem ñu may la wala ñu bañ laa may mais bu dee xaalis bi moom bu dee xaalis bi ñu ko téyee du problème mu ñaan gi maam ah du problème mu ñaan non da ko jox xaalis pour mu yóbbu ko mu boole ko ku ko yóbbu ah waaw kon loolu léegi loolu génn na liggéeyam kon intermédiaire kon léegi ma nga ca leneen am ko ko bëgg a yóbbu mu tukkee léegi nag waaja daa daw kon loolu du ñaan Moussa dañ ko waaja daw na comme que waaja daw na yow yaa fi ne waaw waaw waaw waaji wax na dëgg comme que waaja daw na kañ moo fi ne. waaja daa daw eh, bu fekkente ne. mais kële la kële moo ne moo lancé waaw mais mais mais mooy intermédiaire. ki yóbbuwaate moo daw. mais mooy intermédiaire. waaw ah, moom mooy intermédiaire. procédure bi kële ko lancé alaaji. ah hmm? mooy intermédiaire. ah <coughs> donc ñu ngi koy ñaanal euh, mu génn delluwaat ci ay yitteem. même euh, mbir mu doy la. xam nga moo tax àddina. Hmm. pare keroog dafa maanaam man sorti bi ma ko mujjee seetaan moo ko ay sutu Faal. muy def émission euh, da ngay gis ni maanaam am na ku mu doon wax. Mhm. bay wax ci lu jëm ci wàllu kasoog et cetera. Mhm. di wax naan kenn du ko fi génne de kenn du ko fi kii dafa am yoo xam ni. Mhm. bul di ko yéene nit. nañ tëj diw nañ parce que pareen saa yi borom euh, kenn waru ko yéene kenn yéene ko li nga xam ni moo ko dal maanaam moom war na jàngat. ci émission boobu ak jàngat li ko dal. Mm. comprendre parce que pareen saa yi àddina kenn sunu borom mën na lay wan yenn yi quoi waaw parce que am na loo xam ne bii kenn waru koo yéene jàngat la waaw loolu moom wax dëgg fa yàlla man jàpp naa ni dina am lu mu ci jàng mm-hmm. waaw dina am lu mu ci jàng parce que peut-être que ni li ngeen wax ni yëpp xam nga amut raison que ni mm-hmm. mu war a mën a bañ a loolu mais xam nga tamit yooyu façon yooyu mm-hmm. bokk na ci li tax tamit gars yi du ñëw wuyu si la mooy lan ah ok waaw ñu déglu ci. li nga wax ne sëriñ si lu tax ñëwuñu. sëriñ si moom yooyu. mais am na yoo xamante ni bii tey bu fekkente ni bii da ngeen a taxaw am benn taxawaay bi. Hmm. di wax yenn yi say hmm. moroom. Hmm, waaw ah. tey buñ la wuyu si wut. tamit am nañu raison ba ñu. maanaam ak jubóog booloo dafa war a nekk seen. biir booloo daanaka nekkut ci ñoom. waaw loolu moom nekkut ñoom xam nañ ko. mais waajaat war naa ñëw de. waaw waa daw donc waaw waa ji daw moom. wala mu jéem a yónnee xaalis ginnaaw dem na mu ngi côté Canada la ñu wax. Mm. na ko na ko yónnee xaalis na ko dimbali. waaw loolu moom ñàkk ngor la waaw ñàkk ngor la de di maanaam bokk nit ab problème ba jafe-jafe am nga daw. na booy bi nee na Moustapha dana ko kii yàgg naa yóbbuwaate wóolu naa ko. mais mm. loolu la ko wax ne loolu tax mu dugg si. bi jafe amee rek avant ñu waa ji dafa a fay. daa ce que moom jot naa gis waa ji wala jot a gis waa booy bi. booy la booleeg benn waay indi léegi yow Mm. Assane yow da ngay maye ah, da loxo wala maa ngi jégalu day maye loxo wala day bëgg ma fàtte. ah Assane. déedéet maa juum. Assane day maye loxo wala ah. day bëgg ah, ma. tàggatoo ah de ma ngay daan toog.